al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون بمعرض تناولنا بعض وصايا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمته نود أن نواصل اليوم حديثنا عن تلك الوصية المهمة التي بدأناها قبل أسابيع وقلنا إن تنفيذها تترتب عليه آثار بالغة في تحسين العلاقات الاجتماعية يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وفي هذه الوصية ينهانا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بين أمور أخرى عن التحسس والتجسس وهما أمران مردهما محاولة معرفة ما يخفيه الناس من الأسرار والعيوب والتجسس ينهانا الله عنه في القرآن الكريم فيقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا noo ngi sant yàlla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla mu dolli ko xéewal ak mucc moom ak njabootam ak saxaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam ba àddina tukki mbokk yi noo ngi doon waxtaane yenn ci dénkaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nu mujjee daje nu tàmbale woon dénkaan lool danoo waxoon ne bu nu ko jëfee dana am jeexit lool ci rafetal diggante nit ñi dénkaan loolee nag la ca jiitu danu mujjoon a waxtaane te mooy moytuloo bu yonente bi di moytuloo jullit ñi ñuy ñaaw njort li ci topp nag mooy tere gum leen di tere ñuy jéem lu ñutu diri jàmbur lu nit di nëbb moo xam day mbirum boppam rek moo tax mu di ko nëbb wala sax day sikk moo tax mu di ko nëbb ñu koy bañ lu ñutu di ko bañ a jéema xam nit ñi daal bu jéemee suturaal boppam mu dimbale ko ca sutura soosee te bu koy bañ a jéem a xawi suturaam yàlla danoo tere ci alxuraan ñuy jéema a lu ñutu mbiri nit ñi fi nu teree ñuy ñaaw njort foofu it lañu teree mooy lu ñutu mbiri nit ñi bokk na nag ci lii dimbale nit ba du jéem a lu ñutu biiri nit ñi di jéem a xam lañuy ñuy nëbbu ak seeni sikk bokk na ci la ko ciy dimbale mu yittewoo sikki boppam kenn ku ne noonu am na ay sikk te ay sikkam war nañ koo doy mu yittewoo sikki boppam nag di ko jéem a xam di ko jéem a jubbanti loola dana ko doy ba du yittewoo sikki keneen du yittewoo jéem a xam mbiri keneen sëñ bu mag bi a cheikhul xadim radiallahu anhu wa arda loolu lanu dénk bokk na ci li mu wax ci nax ju xadaayil xaaj muy ay bayit yu mu fekkoon ku ko def mu nettali ko ngir ànd kum ca ànd ma nga cee wax naan bul di jéema xam sikki nit ñi la ñu nëbbu di ko suuturaal bu ko di jéem a xam boo ko defee kat boo ko jéemee xam mën naa tax yàlla xawi sa sutura yow itam ndax yow it am na looy nëbbu boo dee lu ñu tudd keneen di nëbbu mën naa tax yàlla yow it feeñal la ngay nëbbu boo demoon sax ba sa bët tegee ci lu ñuy nëbbu na nga mel ne kuy wax ak sa ne ko bul xool kat bul xool kat ndax man mii am naa lu may nëbbu te nit ñi am nañ ay bët ñoom kon boo xoolee lu nit di nëbbu man mii li may nëbbu man itam nit ñi mën nañ koo xool ci seeni bët noo ngi ñaan yàlla mu boole nu ci mu mu nëbbal nu suñuy ba noppi ñaan mu dimbaleenu ba nu mën a ci des seeni ayib yàlla mu defal ñu yiwaat nag wa alaaxira nu ci sawar yokk na sunu ngëm ubbil na bunt yiw yi soob nu ci ak njub mottaleen sunuy mébét may nu fanu gudd ak wér ak mujj gu rafet wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina astafa ayuha alixatu almuminuun inna mima yuciinu ala tajannubi albaxthi an asraari annaasi wa cuyubihim an yahtama almaru bi cuyubi nafsih wa an laa yafaala binnaasi maa laa yuxibu an yafaalu bih wa li cheikh alxadimi radiallahu anhu wa ardaahu fi hada sadad tawjihatun mutaaddida minha baytaani yaxkiihima fi nahji qadaa ilxaaj laa taltamis min uyubi nnaasi maa sataru fa yahlika allahu sitran an masaawika fa in absarat aynaaka ayban fa qul laha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 وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا واطرد لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله وارد لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسرا كل ذي تعسير يا الله